asalaamaaleykum mbokk yeeg xariti internetu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey jii nag ñu dalal oustaz Iran ndaw ñu fas yéene rek waxtaanee ay poñ yu soxal weeru koor gi waaye itam mbas mi nga xamante ne moo lëmbee dëkk bi ak yeneen oustaz ñu ngi lay nuyu di la dalal ma bàyyi la rek nga nuyoonteeg ñi ñuy seetaan. jërëjëf soxna si ñu ngi lay delloo nuyu. Mhm. di ah. nuyu mboolem ñi seetaan Dakar Buzz yëpp. Mhm. di leen ziar di leen ndokkal ci koor gi Euh, jërëjëf oustaz ñu bëggoon a xam ana naka ngay dundee euh, feebar bi ak euh, confinement bi. waaw ah, bu ma la waxee dëgg de man changé wul ci man dara. Mhm. man la ma doon dund lu jëkk ñuy tudd feebar bi loolu lay dund. Mhm. parce que feebar du ma soppil sama dund du ma changé dara. Mhm. ndax xam naa ne man ki ma bind. wàcce ma moo bind feebar bi wàcce ko. feebar mënaluma dara mënaluma ko dara ñun ñaar ñëpp kenn moo ñu bokk di mënal mooy yàlla moo tax sama dara changé wul du ci doxalin dama lay wax kay ne la feebar bi dafa yokk sama activité yokk sama taxawaay yokk lu ma daan def ndax léeg-léeg nga dajeek nit mu naan la si jamono bi dafa naqari. feebar bi dugg na fi génn. man yoratuma dara maanaam bëgg jël feebar bi teg ko palaasu yàlla. or que feebar bi jaam la. man jaam la ñuy ñaari jaam yu daje ci mission yàlla. moom dafa am lu ko yàlla di doxloo. sant ko mu war ko dox. man yàlla bind ma am lu may doxloo. sant ma ko ma war ko dox kon ñun ñaari jaam yi. kenn ku ne mënoo gàllankoor sa morom. sama activité dara changé wu ci yëguma sax feebar am na. non non ndax est-ce que yëg na ne Iran am na. kon ñun ñaar ñëpp benn yëg-yëg la ñu am mooy yëg na yàlla am na. c'est euh, ci weeru koor la nekk waaye itam mu tombeek euh, feebaru coronavirus bi ana naka la si jullit bi war a comporté woo. waaw xam nga ko weeru koor est-ce que xam nga ne soxna si euh, weeru koor dafa mën a faj feebar. Mhm. xam nga feebar lu ci gën a bon mooy tëdd. ak ñàkk lekk. Mhm. feebar lim bëgg mooy nga yëngatu ti lekk. parce que loolu moo ci man dara weeru koor bi nag. Euh, xanaa lenn li ñuy wax yi daan am ci koor gi nga xam ni bu ñëwaan jàkk yi nit ñaa ngi julli. ñu ngi daan firi alquran. Euh, xale yi di togg ay ndogu ci mbedd yi suñu mbokk xale yu ndaw yi. ak sunu morom yi di def ay café nit ñi di dogee ci àll bi dafa am yu bëri yu manqué mhm. yoo xam ne ci ambiance bi la bokkoon ci koor gi mhm. da yëg ne dañu woor mhm. danaa la wax leen est-ce que yëg nga ne Sénégal yi yëguñ ne koor am na corona bi da leen dominer ba yëguñ koor gi fi mu ne koor gi fi mu ne jeexaayam doo dégg mukk ko ne koor gi dafa métti non non parce que xel yëpp dee lañ ci def muy feebar bi kon yaa ngi jàpp ne mën na la dal bu la dalee mën nga dee ba yaa ngi oor di xiif di màrt yëgoo ko. xam nga dañuy wax ne nit boo ko bëggee faj ci problème bu mu nekk. danga koy teg problème bu ëpp bi mu yor. su ko defee mu fàtte bële nga teggi bii mu am jàmm. ñiy faj bakkan yëpp noonu lañ koy fajee waaye ñu ngi oor ñun ñëpp mais kenn yëgul méttit wi kenn yëgul coono yi ndax feebar bii moo ne ci xel nit ñi te nit li nekk ci xelam rek looloo koy occupé mais alhamdulilahi rabbil alamin nañ koy dundee du dara lu du oor nañu weeru koor wi ci jàmm yàlla may nañu jàmm luñ ci daan defal nit te ci wàllu njëkk ci wàllu yiw buñ doon def benn def nañ fukkam parce que xam nañ ne feebar moom du problème. Mhm. te bi ci des li ma ci ñaan doolee ñaan. mooy weeru koor wi. Mhm. ak corona dañoo xaw bokk tur koor corona. Mhm. waaw eh, bëgg naa daal ni ñu góor góorloo. ba corona bi sant ñu ay ndigal gis naa sax bi ngay ñëw ni nga ŋaawee sa gémmiñ <laughs> waaw eh, gis nga suñ caméraman moom mu ngi ŋaaw gémmiñam kenn ku ci ne li feebar bi santaane yaa ngi koy def. li mu tere bàyyi nga ko mais est su paasee ñu bàyyi santaane yàlla def ay tereem def ay digleem bàyyi ay ay ay tereem est-ce que danañu bàyyi ñu bàyyi tere yàlla def ay digleem parce que feebar bi moom li mu santaane yëpp ñu ngi koy def li mu tere yëpp ñu ngi koy bàyyi ñun ñëpp bennoon nañ ci feebar bi mais est-ce que danañu bennoon noonu wareendoo est-ce que danañu bennoon noonu tabaskeendoo parce que feebar bi ñun ñëpp ñoo bokk yéene ah, parce que li mu ñu tere banañ ko li ñu digal ñu ngi koy def donc weeru koor wi daal ren alhamdulilah man jàng naa ci feebar bi njàngat moo xam ne. def naa ci daara defe naa lu ëpp 30 ans te xamewu ma ko fa. parce que yëg naa ne daal yàlla eh, ci jëf. la ñu gën a mën a fajee ci wax. parce que boo seetloo koor bu jotaan liy firi alquran. ci jàkka yi. li koy firi ci télévision yi. li koy firi ci rajo yi. ak conférence yi yëpp taxul nit ñi bàyyi li ñu tere. taxoon ñu def li ñu digle man dem naa conférence boo xam ne ay politiciens ñoo ko seqoon bi ñëwee ci bëccëgu koor dañ doon akolaatante ci bëccëgu koor bëccëgu keroog laa gëj ca conférence may leen dootuma leen ko defal. ci bëccëgu weeru koor. mais tey yaa ngi nii eh, bi góor sax du jox góor loxo. jigéen du jox jigéen loxo. koo gis mu nga ngaaw gémmiñam mel ni ko yor borom bopp. ñëpp a ngi ngalaab seen bopp waaw. te ku leen ko digal feebar ku leen tere feebar. yàlla digal ñu ñu lànk tere ñu ñu lànk feebar ñëw kon ragaluñ yàlla dee lañu ragal kon niñ ko dundee ci lii daal man li ma ci jàng dafa bari torop te yonent bi dafa waxoon ne ñaari waaraate kan la fi yàlla in bàyyi benn bi day wax muy alquran su waxee wax fajuwul nag mu wàcc kiy jëf mooy kan dee gis nga tey ñu ngi naan rey fee mu nga dëkk bee mu ngi ci dëkk bi koo gis daal ragal na mu dal ko parce que jàpp na ne bu ko dalee mu dee kon daal liñ ci dund ñun ci koor gi sant nañ yàlla bu baax parce que li yàlla bëggoon ñu def ko def nañ ko ndax feebar bi li mu bëggoon ñu bàyyi ko bàyyi nañ ko ndax feebar bi defe naa avant muy ñëw réew mi lëjoon na xumboon na rey gi bëri woon na ah coow li bëri woon na ci góor jigéen ñi bëri woon na ci faux billets yi fa bëri woon na ci coow lu ne ñu duggoon ci parti politique yi fii mars yi fii coow waaye bi corona ñëwee la régler lépp kenn ko ne yaa ngi ne tekk rek waaye koor daal man changé wu ci Iran daara waaw dara voilà. Euh, am na solo oustaz jàngat gi tamit bëri na waaye ñu gis ne rek feebar baa ngi gën a lëmbee dëkk bi cas communautaire yi ñu ngi gën di euh, persister waaye aussi saa su ne ñu gis ne cas de yi aussi ñu ngi augmenter ana lan la ñu mën a nga ñu mën a ak euh, comme solution ngir rek fànk feebar bi di coronavirus. xam nga soxna si yàlla moom lu mu indi moo ko mën yéegal. Mhm. ki wàcc mooy yéegi li am solo rek mooy nañu topp. li docteur yi wax. xam nga nit ki ki jàng faj ba wax la defal lii defal lii defal lii nañ def loola rek nañu boole rek faju ak ñaan sunu borom parce que yàlla mi ko wàcce dañ koy ñaan mu yëgalaat ko gis nga ma wax la lenn ku mu tuddul moom yàlla ne dana la dal du la dal alquran daf ne qul innal mawta alladi tafiruna minhu fa innahu mulaaqikum dee kenn du ko daw parce que day day dajeeg yow. Mhm. liy dajeeg yow mun loo ko daw. Mhm. donc kon feebar bi. Mhm. donte mu ngi lëmbeeg mu ngi wër fekkoon na fi ay feebar. fekkoon na fi cancer yaa ngi fi. fe euh, Ebola jaaroon na fi. cholé jaaroon na fi. Euh, maanaam xeetu peste bu ne jaar na ci réew mi. mais bu ci ne rek day ñëw dem yoonam. kon nañu gëm dalal sunu xel li gën a bon mooy tiital nit ñi. parce que tiitaange baaxul. nit bu tiitee du ànd ak sagoom. kon li ñu war a gëm rek mooy nañ jàpp ne yàlla daal. moo ko fi wàcc. ñu dalal suñuy xel. xam ne kum waru la dal du la dal. kum war a dal it waroo dee doo dee. ku ca war a dee it kenn mënu laa teree dee. ñetti moom nañ ko gëm. te bi mu duggee ci réew mi léegi li fi dee ëpp na ay téeméer. te cor euh, euh, corona bi reyu leen. ay téeméeri téeméer dee na fi. te moom tey ñu ngi ci ay vingt et quelque. yeggaguñ ci trente. waaw te ñu ngi dégg ci yeneen réew yi bu dee wax ja dëgg la ñu fay deele ay junni junni junni donc mbir mi jarul ragal nañu ragal yàlla jarul tiit nañu tiit yàlla parce que amul doole yàlla am doole te lu ko yàlla def loolu mënu ko def kon nañu tiit yàlla bañ ko tiit waaw parce que itam euh, bu dul bëñ nit du dagg kon bëñ yi ci gémmiñ gi moo dagg loxo waa ji kooku mooy sunu borom yàlla kenn mënul def ti neexu ko wa ma tashaauna illa an yasha allah rabbul alamin yàlla mi moom lu ko neex mooy am ñun li nu neex du am li ko neex moom mooy am lu ko neexul du am kon li gën rek dalal xel yi te bu def ñaari rek faju ak ñaan doy na nañu faju ti ñaan rek waaw ah, nañu faju ti ñaan te fogoru rek ah, li ngeen def fegu la xam nga gannaaw nee nañ leen il faut ngeen am lu ngeen def seen i gémmiñ il faut ngeen jël sel bi di ko laal il faut ngeen def li il faut il faut yooyu yëpp ñu respecté ko rek mm-hmm. waaw ñu paree nag bu ñu jullee ñu tàllal suñu loxo yàlla mm-hmm. ñaan ko rek moom mi ko wàcc mu yéege ko mënu fi def nag lu yàlla àndul manul mm-hmm. nekk euh, fànq feebar bi rek ngir mu jële fii bokkoon na ci président Macky Sall jëloon ay mesures ngir rek ñu tëj euh, bërëb yi nga xamante ne moom la ñuy jaamoo yàlla tey jii nag teggi na tànkam euh, tijjuwaat bërëb yooyu ana naka nga ko gisee. waaw oh, sant yàlla rek Euh, ki la war a àtte mm-hmm. doo ko tooñ kon sa peine day diis mm-hmm. ku wàcc feebar yàlla mm-hmm. ci comme ko wàcc nit ku moom feebar yàlla ku moom nit yàlla ku moom jàkk yàlla kon la gën yàlla mi ñu teg ñu fexe ba bañ def lu tax mu jéppi ñu teg-teg bi gën a diis kon bu loolu amee président Macky xëyaat oyofal ne kon nañu dellu ci jàkk yi waaye nag na ngeen góor góorlu nañ ko organiser ba li nga xam ne docteur yi wax na ko ñu mën a méngoog loolu loolu ñun dañ ci sant yàlla man bi ma ko yëgee bég naa ci parce que xam naa ni tëjuñu lu ñu moom tëjuñu lu ñu moom ndax man du suma kër la ñu tëj du sama néeg lañu tëj te ku tëjoon sama néeg danaay soirée yow sama kër ko tëj danaay soirée yow soo dëkkoon tey ci benn bu luyee fa fa locaat eh, eh, eh, li nga fa luyee yoreloo benn bor yoreloo borom kër gi benn bor sa location yëpp mat na fay nga ba mu mat soo xëyoon ñoo fekk mu dajj bunt bi changé sellir bi te yoreloo ko dara tribunal nga jëm te soo ko yóbboo tribunal ñu teg ko ci yoon lu tax nga tëj néegu jàmbur te yow néeg bi ñu la tëjal boroom kër gi moom néeg bi waaye da ngaa moo tax bi mu ko tëjee mu am problème yàlla nag moom moom néegam kon bu fekkee tëj nañu ko dem ba mu yàgg ndax ragaloon feebar bi ragal wàllante gi ci daje bi ñu ne niñ ko tëj ba jamono loola ñu dem ba mu yàgg président ne kon niñ ko tijji donc nañ tijji te kuy dugg nag yelal masque sooy dem laalal sel soo duggee ba ci biir tam niñ la tëralal ñu ngeen ñu am écart rek kenn ko ne di sa morom ñu julliti dem ñun ne tijjeeku rek Euh, moo danañ julli duñ julli amul solo la en tout cas nañ tijji néegu jàmbur rek loolu moo ci amul solo waaw yaa moom sa néeg est-ce que buñ tijjee da nga dugg wala doo dugg fi ngay fanaan wala doo fanaan yoonu kenn nekku ci nañ tijji néeg bi rek mooy solo man loolu laa daan wax borom néeg bi dañ ko tijji néegam jeex na danañ julli ji ñoo xam julli ju ñoo xam man a am mi la saalihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha yàlla nee na ko def lu baax sa bopp ko def lu bon sa bopp lu waay def boppam kon nag tijji gi rek moo am solo gannaaw yàlla euh, tijj nañu ko nag ku bëgg a julli yaa xam ku bëggul ñu yaa xam ñun ñoo xam rek man tijji gi rek laa waxoon nañ ci góorgóorlu suñu neexee nag buñ demee nag ba dogu ci julli nañ ko organiser nañ ko organiser li ñu médecin yi wax moo di masque moo di sel buñ duggee ñu dàndante jeex na lii rek moo ci am solo suñu paree ñu ñaan suñu borom ndax it bu ñu duggee ci jàkk yi nag war na buñ julli ilimaan yi joxe ñaan yàlla docteur yi ne ca côté bële. médecin euh, sëriñ si ne fële ñii di ñaan ñii di faj bu yàgg yàlla dooleel ñu. voilà. oustaz bokkoon nga si ñu doon opposé wu ci lu ñu tëj ci jàkka yeeg jumaa ji euh, tey jii tëj nañ ko waaye gis nañ ñi nga xamante ne aussi dañoo tëj ba tey seen ay jàkka euh, ki nga xamante ne mooy xalifa général des Tidiane moom sax àndul benn yoon ci ñu tëjwaat néegu yàlla yi lan nga ñu si mën a xamal. loolu du sama problème. du sama problème. Mhm. ndax yaa ngi dellu ci jàkka ji comme ni nga ko bëggee woon. par exemple. ndax ni ñu tijjiwaatee jàkka yeeg. kooku tontu naa ci ba pare. Mhm. amaluma problème man mhm. yëfu kilifa duma ci wax. Mhm. ah man li ma ittee rek man ci diine laay wax diine. diine bokk ci laa am cër ci laay wax. mbiru yeneen kilifa moom dugguma ci. nit ku ne ak eh, la la la la yaa xam na nga na ngay gisee na nga bëggee yaa xam mais yooyu détail duma ci dugg. duma ci wax sama yoon nekku ci. waaw du ma ci wax sama yoon nekku ci waaw. Euh, mu ngoo ko euh, oustaz ñu bëggoon xam aussi ak euh, li ñu tëj marché yeeg luuma yeeg jàkk yeeg jumaa yi ba xam aussi nekkul danger est-ce que solution la tamit du danger lu gën a mën a lawal feebar bi. ay eh, soxna si xam nga feebar bi amul danger. Mhm. yàlla moo am danger. il faut ngeen gëm ne feebar bi du rey kenn te yàlla àndu ci du dal kenn. te yàlla àndu ci yàlla rek moo fi ne du dal kenn te yàlla àndu ci du rey kenn te yàlla àndu ci mais bu ñu tëjee marché yi fu nit ñi liggéey fu ñuy dundee mais actuellement rek actuellement diggante bii ñu am rek nga xam ni nit ñaa ngi ko toog mais am na ñu sonn li ma xam naa ko toogu moom man damay dox am na ñu sonn torop ci diggante bi kon solution bi lii Macky def rek mooy solution ubbi marché yi nit ñi mën a def seen business oto yi ñu may leen ñoom it li mu ci wax euh, place yi ñu may leen yokk ko ñëpp commencé mais bu fekkee feebar dafa ñëw ñu tëj marché yi tëj liggéeyukaay yi tëju ci biir kër yi su feebar bi demee fu ñuy dundee lu gën a garaaw corona muy ñëw ti muy xiif te xiif bu ñëwee xam nga ni xiif méngoowul ak doomu aadama bañ nañ ko ba garab gu la tubaab di jox danaan la lekkal ba pare doog koo naan loolu la leew lekkal ba pare doog koo naan ko koy leer na kon donc toogaay baaxul aussi feebar toog baaxul di bañ ñu ko ba médecin yi dañ la del doxantu waaw del doxantu kon activité yi ñuy def yëngutu bi mën na mën na néewal doole feebar bi dañuy boole yëngutu lekk marché yi dox nit ñi moytoon te jeex na mais buñ bëggee toog di ko xaar te xamuñu kay lay jeex mais mun nañu dem ba suñuy sàq jeex suñuy poset jeex te feebar bi du jeex ñu mujj fa jeex ñun ñëpp ndax biir bu deful dara moom olof nee na saako bu deful dara du taxaw c'est ça ci xiif googu sax taxoon na euh, activité yëpp bu ñu arrêté président Macky Sall dafa jëloon ab ndimbal euh, jagleel ko askan gi ndax bokkoon nga si ñi nga xamante ne jotoon nañ ci eh, soxna si <laughs> dinaa la wax lëf mhm. man mbiru kilifa rek laa ragal mhm. danaa la wax lenn xam nga ko sax dégg nga ko mhm. tooñ duma ko def duma wor duma fen bi ci des duma tàllal sama loxo ci nit gis nga lépp lu concerné kilifa Iran du ci dugg su dee lu mu dajale muy ndimbal kooku diggante président la ak ñamu ko séqal ak lamu ca nar ak fa ñu ko jëme man daal fexe naa man ci suma wàllu bopp man social ci lay dox fexe naa man ci sama wàllu bopp jàpp naa ci réew mi dajale naa la ma am jox naa ko ña ma ko war a jox ak la mu war a àndal def ko muy sama participation en tant que sénégalais waaye le résident dajale fu mu ko def ak ku tëj jumaa ku tëjul jumaa loolu du problème mu Iran Iran daal euh, dinaa la wax la ma sëñ Abdou waxoon dama noon doom ñeex si siim sama cere xam naa ko duma yor kaasu cere di ci def boolim ñeex kon du ma am cere du ma am ñeex bi ci des tam man bu may sombi damay sombi lu ma yor suukaram Macky daal moom moo xam eh, eh, la mu daje léeg nu mu koy tëre léeg nañ niñ ko naree man oowuñu ma bu ma ca bokkoon nag ngeen ne ma waaw léegi ceeb bi ngeen dajale wala xaalis lu ngeen ko bëgg def comme ni nga ma laajee moo ma laajee ci daara yi ma wax la parce que ci laa bokk soo ma laajee ci jàkk yi ma wax la parce que ci laa bokk ndax bëgg nga ci liñ ko tijj ma ne la lool mosuma bégee nu mel ni loo xam ci ñi tijjiwul nag ma ne la sama yoon nekku ci waaw loolu ñoom ay kilifa lañ man duma kilifa déedéet man bëgg-bëgg rek laa amoon di ko ñaan di ko dox ba yàlla amal ko kon sama yoon newu ci la ci des euh, kon ñu wax mhm, mhm. man mii mhm. ragaluma dara maandu rek la waaw euh, kon ñu wax li jëm si daara yi oustaz yaa ngeek daara bu nekk Tiwaawoon ana naka ngay dundeek ndongo yi ci jamono yu ñu toll gis nga sunu daara. Mhm. soxna si moo daq ci daara yi. Mhm. sunu lekk dara manqué wul. macha allah. Mhm. kenn fekkuma fa ne ma fifteen bii maa ko def ci daara ji kenn. non man maa ne ca daara yi sëñ Babacar si maa fa nekkandi. du ma fa mujj ndax am na ñu fa nekkoon jóge fa maa fa ne dina ma fay jógee keneen toog waaye corona bii ñëw amuñu benn problème lépp dama du pour ma wax la dëgg sax daa mel ni ñun suñ daara daa gën a dox ci loolu du ONG nag du ndimbal lu jógee fen ti ñaanuñu kenn ndimbal soxluwuñu kenn dimbale ñu non alhamdulillah daara ji dafa am borom Serigne baaba kër ko moom ci mag ñi seen mbir duñ dem bàyyi ko noonu yàlla suturaal nañu fu ñu jullee nag julli yu juróom ba feebar bi commencé ba léegi fu julli matee ti sibaar foo tollu dégg riiru daara ñu nga ci wàcce kaamil ya ñu nga ci jàng dog yi sëñ Babacar joxewoon mu yaa xaadiran ñu nga ca bu maaruful karqi ñu nga ca bu ñu sëlmalee def ko buñ paree dellu ci suñu njàng ba ci fajaru tey gi ci mujj donc ñun loolu lañ gëm gëmuñu man feebar bi du ma yàqal dara wallaay soxna su gàllankooru ma man yëgu ma ne sax feebar am na yàlla xam na loolu parce que dama gëm ne budul yàlla dara du sotti mais bu dee yàlla lépp sotti feebar bi mën na fi am mille ans du lor kenn bu ko yàlla lorloowul mën na fi def benn seconde tukkal àdduna bu ko yàlla sante mbir ci loxo yàlla rek laa jo moo tax daara yi ñun liñ ci yor lañ mën a waxal suñu daara du yelwaan daara sëñ fa yelwaan ndax góor gee ko terewoon moo waxoon sëñ Abdou ne ko bu xale yelwaan ndax nit dana bëgg a jot ci yow te du mën a yegg si ci yow mu jaaree ci sa ndongo kon fexeel xale yi bu ñu yelwaan bi ma fi nekkee yor ko sëñ Abdou loolu la ma digal ne ma la sa maam xale fooxoon laa leew bu xale yi yelwaan liy ñor ci kër gi mën nañ ko bokk di ci lekk muy daqaar ji ci kër gi sëñ Baaba ko tuddee moo ko tuddee woon daqaar ji donc ñun amuñu problème daara ji alhamdulilah rabbil alamin kenn du la ne nag maa fa yóbbu dund kenn du ne la maa fa yóbbu ceeb kenn du ne la maa fa yóbbu xaalis dara la ñu fa indiwul déedéet te lépp ngay dox ba ne gàññi dara manqué wul alhamdulilah rabbil alamin euh, macha allah oustaz am na solo lool waaye ndax xale yi comme euh, mbooloo la ndax ñu ngi respecté mesures yi nga xamante ne kër docteur moom la ñu digle. boo ñëwee li ma yor ci sel. Mhm. xajul fii. ca gis nga soxna si xam nga lu gën a bon mooy li yàlla wax nee na digal nit ñi lu baax te yow doo ko def a tëb muroona naasa bil birri wa tansawna anfusakum yàlla nii na li ngay wax buñ ko jeexee nañ ko gis waaye nit koo xam ne boo waxee ñëpp ne ëskëy buñ la toppee ne wuy sama yaay musiba la fii rëy na nu wax néew jëf ku la gën a rëy làmmiñ boo ko toppee du jëf kat Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma da daan wax ne mënumaa boole ñaar wax ak jëf bàyyi leen may jëf ti noppi baa ma waxti bàyyi jëf ñu ne ko Mbacke del jëf jeex na jëf rek il faut ñu respecter ko mënoo toog ci télé yi di wane ay selek nii la ñuy def ak ti daara ja nga ne loolu nekku fa kooku affaire naa fekk la kon yow da ngay ngisal li ngay wax nit ñi ak di leen koon bokkul ak li ngay def donc ñun suñu daara rek respecté nañ lépp a ngi ci biir ñi boo ñëwee douche yi ak daara ji lépp bokk benn loge bu ñu ne benn loo tout ci biir la ne danañ dugg jàpp ti duñ génn daara ji déedéet lekk yi moo lay fekk ci xale yi ci daara ji lu gone tuuti tuuti day woor dara génnul daara ji douche yi lépp a ngi ci biir manqué wul dara dara dara lu ñu soxla ci biir daara ji lañ koy defe mhm. kon defe naa foofu yàlla mën nañu musal. waaw bu bu mucc jotee buy musale mën nañu <laughs> caa boole. Mhm. waaw waaye musalagum nañu. Mhm. te mu ngi ñuy mosal. alhamdulilah soxna si. alhamdulilah macha allah yal na leen yàlla musal